anta rabbi wa kawniya xaadiman nabi wal kitab fadlu min al la min iktisab kon jàpp na ngëneel la yàlla la kon neen liggéey li bi ko liggéeyal du lu ma fàggoo waaye ngëneel lu ma lu ma sama borom baaxil rek jàpp ne liggéey yonent saa sam ba tey tiraanga la ci ne akramnil bi xidmatil bashir wa xalimi ilal maziyat yushir jàpp ne it ko mooy taaru biiram tey taaru bitteem mooy taaru zahiram te taaru batinam zinatu zahiri wa batini maa kawni xaadiman lahu muttabia tax mu kon wëlbati léppam jëmale ko ci liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te neen loolu sax daa mel moo gën a kawe ci moom suuf si buñ ko duyaloon wurus ba mu dell neen liggéeyal yoon saa sama ko gën a loola moo dàq ci moom loola xullibatil xidmatu naxwal mujtaba wataaka faaxa mil mil allardi zahaba ba tax na kon nee na sama daraja muy guddi muy bëccëg mooy liggéey li yonent bi saa sam mooy di ko ak bëccëg mooy sama daraja mu la jàpp muy daraja darajati fi layli wan nahaari xidmatu jaaril jaaril an jaaril anwaril bahaari liggéeyal ki nga xam ne mooy dëkkaale bi yàlla yàlla ba waaye mooy ka nga xam ne ku borom leer ga ku taaru ko lool tax mu daa jéggul yàlla subhanahu wa taala ci lu mel ne gàttañ lu gum gàttañ lu woon ci liggéeyal yonent saa sam wala wala néeg néegal mu ne doon doon di musa am sax waaye eh, lépp toroxlu la mu ne kon néeg néegal googu a gàttañ lu gi ma gàttañ ci liggéeyal ko loolu maa ngi koy tugal sama borom lillahi tubtul yawma min taswifi fi xidmatil muxtaari di tasrifi te neen loolu yi nag mooy liggéey bi ma koy liggéeyal nag kenn mënu maa wëlbati ba jël ma ci fenn fudul liggéeyal yonent bi saa sam kenn mënu kenn mënu ko te def nee na ka koy def sax daa mel ni am am am xelam dafa des safiha man araada ay yasrifani an xidmati muxtaari baabil minani mën a ana kan sax mooy sikki sàkk ci doon gi ma nekk xadimam bu koy liggéeyal ana mooy sikki sàkk loolu anna yashukku ahadun fi kawni xadima man joila nuural kaw ni nee na ma jàpp jotte nag lu dul liggéeykat yonent saasam kooka ku réer la ku sànku la ki ma jotte lu dul liggéeykat yonent saasam nee na ka ma jotte loolu ka ko jàpp ku réer la ku la dalla alladi yadunnu ni gayra alxadim lil mustapha alladi siyadatu tadum man zanni ni gayra xadimi almustapha fa inni ni bi mustapha nee na képp ku ma jotte lu dul liggéeykat yonent saasam nee na ma dama koy liggéeyal ca nam ko tànne axdimu ila duxulil janna daal xare wala wal minna dama koy liggéeyal ba kër may tàbbi aljanna te buñu ba tey ma wéy di ko liggéeyal foofu loolu kon tolluwaay bu rëy bu mag bu màgg a màgg bu kawe la majaalaati xidma yi nag yaatu la ci jiitu mooy dafa njëkk a jaayante yonente bi salaa salaam ci di ko liggéeyal ubaayi on yowma rasula mustafa bi xidmatin wa asalullah alwafa uhahidullah ala axdil kitab bi xidmati bi xidmati mustafa baabi sawaab daal dama jaayante tey laay tey jaayante na maag yonente bi sallallahu alayhi ci di ko liggéeyal tey ñaan yàlla mu dimbale ma ba man ko matal maa ngi kóllëre sama borom itam ci jël alxuraan téye ko waaye ci liggéeyal yonente bi na saas mi nga xam ne buntu njub mu mel nag anam yi mu ko liggéeyale mën nañ koo tënk ci ñeenti anam anam yi mu liggéeyale yoon saas mën ko jàpp ci anam ba ci njëkk mooy topp sunnaam eh, ngën jaa mati toppin sallallahu alayhi wa sallam muy topp sunnaam mooy liggéey bu njëkk bi bako ko ñaareel yeesal ak tasaareel ko diineem yeesal diine ji ak tasaare ko ba jotale ko ci ñépp ña ca war jot ba ko ñetteel mooy saxal di ko tagg tagg yu kawe yu biire di ko dëkk ci mbind ci way ak ci wesal ak ci fànn yépp ba ko ñeenteel mooy saxoo koo liggéeyal ci di julli ci moom sala sañ ci ay mbindam mën a ñeent ko mooy yi gën ci lim liggéey yoon saas waaye bokk na ci itam tegal ko nit ñi ci aw yoon mooy jubbanti nit ñi def dina ci ñoom def ak jub ci ñoom anam yi mu liggéey yoon saas bu jëlee bu njëkk bi muy topp sunnaam sayxul xadim sun eh, sunniyun kaamil la woon maanaam lépp lu baat bi làmbo ci maanaa ci baatu sundiyu nañ ko lam lambo ci maana lépp daje woon ci moom ci pas-pasam ci ay julleem ci ay taxawaayam ci ay kooram ci ay asakaam ci tedd nga jikkoom ci rafetuk ay melokaaram ci yitteem ju kawe ci ba ci ay ay ay ay solina sax na muy sax da koy dëppale sunu si yent bi saa sax walu weex dal ga ca na muy tooge buy dox na muy doxe melokaan na muy waxee dox bu gaaw ba ak eh, xet gu neex gi muy eh, taqo waxtu nekk nga xam ne kon lépp man nga ne ba ci ba ci ba ci eh, na muy jëfandikoo aw ñam ba ci lay tudd nelaw ko su néew ci moom na muy waxe te waxa sax daan néew lu may tudd yàlla ak ak jàngal Alxuraan kon man nga ne kon léppam rek don xentu kon ngirum yonent saa salaam ci biiram ak bitteem nga xam ne mooy soxlaam sax moom moom doo ngay soxlaam sax far aslamtu nafsi li rabbin la sharika lahu ma allati qafuhu shughli wa xaajaati jibal naa sama bopp yàlla mi nga xam ne kenn du ko bokkale kenn waaye ànd ki nga xam ne xentu ko xentu sunnaam mooy sama soxla mooy sama aajo amu jeneen laysa li laysa li yawma xaajatun uammiluha si waqti fa ika xafwal xal bi wal badini nen tey ji da uma jenn aajo ju may mbébét ju weesu xentu saw doxin yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye royu waaye xentu xol ak xentu yaram mooy dama ko liggéey sama xol ci sama pas-pas waaye di ko liggéey sama jëm sama yaram inni muhaahidun ala taxayyudi bi sunnatin nuxtaar tuulal abadi nee na maa ngi kóllëranteeg yàlla ci tënku gi may tënku ci sunu sinti bi saa salaam diiru jamono banaytu taatee bi tibaai bi dikri wal xadiisi wal ijmaai mais sama topp yàlla lépp dama ko tabax ci alquranul karim ak xadiis yéen saa salaam ak la borom xam-xam yépp daje eh, lañ dëppoo kon mooy lépp nda ko teg ci lislaam teg ko ci sunu sinti bi saa salaam di ñaan yàlla borom subhaanahu wa taala itam mu dimbale ko ci ma am li saqaama mooy jub ako sax dàkk nag ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi nga xam ne mooy soppeem léppam wa min hurumtu listiqaamata abad fi sunnati muxtaari xayri man abad wa an nuwafiqa ila ittibaaci sunnati ahmad altawil albaaci wajal fitna nga kon ñaan na boromam bu saxal ko ci sunu si saa salaam waaye dëppoo nag ak dëppal léppam ak topp sunaam waaye defal ko bànneexam xam itam bànnee xam nekk luy topp sunu si bi saa salaam nga xam ne wax na lu bare bare bare bare itam ci dénk nit ñi ak jëmale leen ci ñuy topp sunu si bi saa salaam kon day tàbbi ci lam la wax bokk lim ko léegi mooy tegal ko nit ñi ci aw yoon ba tax soññee la ba tey ci ñu tënk ci tënk ko ci sunu si bi saa salaam أيها القوم سارعوا لاتباع سنة المصطفى رئيس الثقات yéen yéen nit ñi rikwaay gaawantu leen jëm ci topp sunnas Mustafa Mustafa sallallahu alayhi wa sallam wasluku nahjahu jamian tafuzu bi rida sifaati yéen ñëpp soobu leen ci am kon da ngeen texee da ngeen tuufoo ngërëm ngërëm seen borom da ngeen ci jëme jëlee tamit ay aljanna nee na mboolim yu yépp ñu ngi ci ragal yàlla ak topp sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam néewul feneen wala takun mustamilan illa bima yuwaafiqu sunnata mimma ulima nee na bul jëfandikoo lenn lu may da nga koo dëppale sunna si bi sallallahu alayhi wa sallam laa tatawajjahoo li faida walaasimu sunnata wa hiya alqaida bu leen jëm ci lenn lu amul njariñ waaye lu ngeen di jëmin na ngeen ko dëpp na ngeen cay taqoo sunu sunu yéen saas boo ko toppee lu gudd a gudd gudd la wax na ci lu bari wax ne loo xamut naga laaj boroom xam-xam yi waaye naga nga topp nag na nga roy kii topp sunna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam fal tas alil aalimu waxdul li sunnatil muxtaari xayri man tubi waaye itam kii jaamu yàlla na ko royee ci ñuy topp sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wal yaqtadi al aabidu bil muttabiin li sunnatil muxtaari ahmad al amin waaye itam mu moytandiku li itam xuppe lool ci képp ku du topp sunna si yonent saa lam ko mën a jural waylun liman bada lahum xiraafu an sunnatil maahi awin siraafu waylun wa fitnatun ma alxirmaani li taariki sunani fii zamani toskare ak fitna ak ñàkk lépp ñal de nga xam dafa bàyyi bàyyee topp sunna si yonente bi salallahu alayhi wa sallam man lam yakun bi rasulillahi muttabia man lam fa huwa maghrurun yara niqama képp koo xam ne toppul xëntuwul sunna si yonente bi saa topp ay jéegoom ci diineem kooku ko waru la xam ne dana daje mbugalum yàlla subhanahu wa taala wa man lam yalid nahjahu yuntazar bi xullin saqilin la fo képp koo xam ne toppul ngirëm moom yonent saa sallam koy xaare ay jéng yu dis gann ak sawara wuy lakke jaat loo xam ne rëy na rëy xam ne jégeen dayo ba ak cantam waaye na mu xem ci cantum ba tax mu woote ne képp koo xam dafa ci santale yàlla kon bisu màggal bisu sant yàlla la mel nag yeex na ko woote tuuti ndax bi ñëwee njaareem ba ca atum am sachin la ci mbindum sëriñ Mawlaay Buso atum am sachin la ko digle sëriñ Mawlaay dafa bind wax ne bokk na ci leen suñu bon defal tawfiq ci sëriñ Tuuba mbirum ndigalul màggal gi jaar jaar ci loxam muy fukki fan juróom ñett ci weeru safar mun na bokk na ci tawfiq ja bi nga xamee ne bis bi jege na ca atum am sachin muy atum junneeg ñett téeméer ak ñeent fukk benn lu jiitu ndigal li tuuti ndigal màggal gi neen dafa dëppoo sama mag sëñ Mahmoudou Mbuso bii yónnee ci sëriñ bi hadiya ab gàtt ànd ci boo xam ne boobu béy la mu jaar ci man naan bi moo ko xibaaree sëriñ bi wax ko ko ne ko ab gàtt ka ñëw na fi waaye aw béy la mu digal ma ne ma ndax man nga ma koo sop ndax man nga ma ko wecc ko la am xaaf ne ma ne ko wax ah, dana mano mais bu ma desee indi indi xaaf moom wecc ko bi indi xaaf mi ci la ma digal ne ma naa ko ko téyel te nekk ci ndigalam biñu àggee ci fan juróom safar nag ci la ma woo digal ma ne ma li ma yàlla defal ci ay may ak xéewale ki ngene lépp ak yéen li ngeen am ci ay ngene li ki xéewal lépp yéen yéen ko maa ngi ko amee yéen yéen ko amee ci bis bii muy muy muy fukki juróom ci weeru safar daa may digal ne ma naa rendi gàtt ba wóotu ko ci ci yéene ci màggal gi nee na ma topp ndigal la mu ko defee ba noppi mu ne ma danga ko séddale ñaari ñaari xaaj nga jox ko sa ñaari bàjjan diw ak diw jëruñu àgg ca tur ya ngir ñu toppatoo ko daal leen daal leen jox la ko war a yéwénal nee na ba mu àggee nag dañ ko toppatoo ba noppi nee mu leexal nu ci ñun ak mbooloo mi ak dëkkandoo yi ñëpp daan ne bis bi saa bu ma ci santal yàlla gannaaw la woo sëñ Balla Faali Jang ngir mu yëgal taalibe bi yëpp ne joxe naa ndigal ci saabu fukki fan juróom ñetti weer safar dikkatee lu waay mën na ma ko ci defal li dal ci ginaar ba ci kon màggal gi da ci dégg kon bernde la màggal gi bernde rek la yi ci dolli ko yëpp da caa dolli mu jàng alxuraan maag xasida yaag tudd yàlla yaag sikar yaag lépp da caa dolli ko waaye jëmmi benn mooy mooy màggal gi la ko firndeel mooy bi mu ko njëkkee def moom ci boppam ci gàtt boobu digle wut jàng alxuraan digle wut jàng xasaayid may rendeb gàtt terle dong la ca def ba muy joxale digal daa daa le dali ci ganaar ba ci gileem la wax tudd ci leneen ko la ci dégg mooy kon màggal gi mooy bernde ngir gannaaw dañ ko sant yàlla nag kon lu cant gën a sell gën yaatu boole ci jàng di ko ca boole jàng xasi na si waa lépp alxuraan la lu muy tàmbali alxuraan tàmbali moo koy tëj mooy ne ca digg ba kon alxuraan ji doon ci doon ci am solo xasaayid di salaatu al nabi lépp te xasida lépp gannaaw alxuraan lépp nga ca biir kon ber na mooy mbàgg kon nañ ko gën a fonk gën ko jox gën ko gën ko jox warum baax baax kon mu doon sant yàlla biñ ko door a tàmbali nag dañ ko daan defee kenn ku nekk fa nga nekk waaye gannaaw bu sëñ Fallou doonee sëñ Touba nag la joxe ndigal na ñu indi ko fii ci Touba ndax wane ne lu doon defee ko Touba moo gën defee ko feneen sëriñ bi nag <coughs> yàgga wax ne moom it gannaaw ba amee lam lam bëggoon lépp na lam la yitte mooy sant yàlla sante ko fii ci suufam xaawaltu shukrallahi fii turaabi baada jamili sabri fiqtira bi maa ngi jéem a sant yàlla fii ci sama suuf fi ma dëkk gannaaw ba mu muñee muñ gu rafet ci sabatu mu ranke eh, mel ni nag eh, defe gi Tuubaa ak Daaru Salaam itam mel na ni gannaaw bi gis nañ gis nañ ci mbindum mel ni mel mel ni loolu naka jekk lu mu yéene woon la nawaytu shukruhu lada daari salaam wa inda tuubaaya bi jismin wa qilaam nam mu nama sant sa borom fa daaru salaam ak fa tu fa sama tuubaaga ci sama jëmm ak ci samay xalima nawaytu shukruhu bi fardin wa sunan indahuma wa inda daari tilminan fas naa ko yéenee sant moom suñu borom te jaar ko ci farata ak sunna ca ñaari barab yi mi daar salaam tuba waaye ak ca daarul minan yéene naa ko sant itam ci lépp lépp lu dagan kon lépp lu dagan rek mayees na ko def gi lu baax fas naa yéene sant ci lépp lu dagan tam tànnal ma ko ta wamatal na ma ci loole loole tono nawaytu shukruhu bi kulli ma abaax waxtaarahu liya waqaada li rabaax nee na itam sama yaxan dama doon yaxantu de tono woon naa ci muy liggéey ba mu liggéey bi muy liggéey saas moom la tuddee tono moom la tuddee yaxantu ne sama yaxantu moomee de tono woon naa ci sama tumuranke ga waaye maa ngi sant sama borom nag fii ci sama suuf gannaaw bu ma defee la mu doon wut lépp rabixtu fi tijarati fi gurbati wa ashkuru aljamila inda turbati waxit ne damay saxaala sant yàlla ba ker muy tabeel janna ci lu muy ànd genn waru wala muy ànd ak genn noono udiimu shukrallahi lil bila taxarrurin wala udwaani fas naa yéene sant yàlla ci sama dëkk ba ci sama dëkk foofu sama baat sama dëkk bi la fa jëfandikoo waaye suñu bon nekkal na ma te sellal na sama sax foofee xaawaltu shukrallahi inda baladi balad dana fiir am réew dana firi ab dëkk wa kaana lillaahu wasafa xaladi nan fay ga fay ga sama fay nag ca sama suuf sa mooma faaral tiis yaag metti yam ma nekkoon ca sama tumuranke ga mana mbég te yi ma sama borom jox ak xéewali fàtteeloo na ma tumuranke gaag coono ya ma dajoon ca fa ma nekkoon billati itam ànd lépp lu neex lépp lu neex lu ñuy bernde muy luy bégal ruux luy bégal luy xol xawaltu shukrallaahi bi tilaawa wa ci mukk ko sun boon defale ma nga moom moomu la weesu woon lépp basharani bi xayri taxwifin safar bil muntaxa baaxin lima mada xafar kon nag yéene naa ko wal am sant yéene naa ko xelima yéene ko sant ci leneen lu dul xalima yët yow mi nga xam ne yaay borom jawaar anta rabbi wa